mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël aaya ñaar fukk ak benn ci suuratu sajda te suñu borom di waxe ni walanuziqannahum min alazabi aladna in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين comme mbokk bi Cheikh Ousmane mu ne dafa am ngant ñu ngi dimbali ko ba tey it ki nga xam ne mooy Mahmoud Al Xusayri incha allah ci njàng mi. suñu boroom jalla wa ala mu ne wala nuziqannahum sikk amul de dañu leen mosal min al azabil adna ca mbugal ma gën a jege gën a suufe duun al azabil akbar lu bokkal ak mbugal ma gën a màgg laallahum yarji'uun ngir ñoom ñu dellu gannaaw wa man azlamu ma ana ko gën a mën a tooñ mimman zukira bi aayaati rabbi ci ki nga xam ne dañu ko fàttali aayay boroomam summa arada anha gannaaw ba mu dummooyu aaya yooye inna min al mujrimina muntaqimuun ñun day dañu nekk ci kàccoor yi def ko te bàkkaar yi ñoo xam ne ñu ñuy fayu ci ñoom ay ñu ñuy mbugal wa laqad aatayna muusa alkitaab sikk amul ci ne joxoon nañ muusa ab téere joxoon nañ ko téere ba fala takun fi miryatin min liqaa'i bul nekk ci benn sikk sàkka ca dajeem ba wa ja'alnaahu hudan li bani israil defoon nañu téere boobu it muy njub ñeel bani israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi amrina def nañ ci ñoom it ay njiit yuy jubale ci suñu mbir lamma sabaru bañ demee ba muñ wa kaanu bi ayatina yuqinuun ñi nekkoon ci suñuy aaya it doon ñoo xam ni ñu ci am ngëm gu wóor lañu inna rabbaka huwa yafsilu baynahum yowma alqiyaama sa borom yàlla mooy teqale seen diggante bu bisu penc taxawee alaxira fi ma kaanu fihi yaxtalifuun ci li nga xam ne dañ caa nekkoon di ca jooyoo mi ngi noonu mbokk suñu boroom bokk na ci yërmande gi muy defal ay jaam mooy suñ demee ba jàdd na doon ñooñu ay yéeféer lañu wala jullit yu nekkoon ca yoon wa génn ca mu wàcce ci ñoom mbugalu àdduna avant mbugalu àllaaxira ngir ñu dellu gannaaw jàngoon nañ ko ca saar bële muy ruum suñu borom ne zahara alfasaadu fi lbarri walbahr bima kasabat aydi nnaas li yuziqahum ba'da alladi amilu laallahum yarji'un suñu borom nee na bu ñu xoolee ci suuf léeg-léeg maral am tool yi du ñu am dara léeg-léeg ndox ma ëpp yàq kër yaag tool ya nga dem ci géej ga géej ga sambaraax jaxasoo fitna am ci doomu aadama yi fitna yooyu dana dem ba suñu borom ne sax aw yulbisukum shia wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd léeg-léeg ay guerre la koy def yu mu tàkkal ci am réew wala diggante ñaari réew borom bi nee na lii lépp bu mu koy def dafa bëgg nit ñi tiit ba dellu gannaaw te mboolem yeneen tiit gis nañu suñ borom jaar na ak ñoom foofu moo tax yeneen yi seen xeet lu ñu leen doon wax inna tatayyarna bikum ñun gaafalu nañ ci yéen ndax bi ngeen commencé seen woote bi lañ gis fitna yoo xam ne mosuñu koo gis donte ne loolu yàlla mi ngi leen koy teg ngiree yërëm leen bëgg ñu tuub bëgg ñu dellu gannaaw léegi nag suñu borom mu ne ana kan moo ki gën a mën a tooñ ci ki nga xam ne xamal nañ ko aayay boroomam gis nga suñu borom waxul bi ayatillah aayay yàlla waaye dina aayay boroomam rabbihi ki nga xam ne moo ko bind moo koy wërsëgal moo koy taxawal ñu ne la kat lii la yàlla bëgg ci yow nga dummoo yu dem topp say bànneex suñu borom mu ne day tooñkat yooyu fokk dinaa fay ci ñoom te itamit mbokk jullit da ngay gis ne xatta ay jullit léeg-léeg ñu jaar fu neexul yàlla ni ma leen ko waxe sànq suñu borom indi leen nattu ba tax ñu tuub dellu gannaaw ba bokk na ci loolu la nga xam ne moo nekkoon base dundu doomu aadama yi te mooy am mbay donte ne nag bu jëkk nit ñi dañ ci daan dund directement waaye ba tey nit ñaa ngi ci dund indirectement soo demoon ca gàttsel yi gën a kawe ci New York bés bu nekk daañ soxla loo xam ne ci mbay la jóge mu ngi noonu suñu borom yàlla da daan bu nattoo wàccewul taw bokk na lu sunna jàngale ñépp nañu tuub toroxlu dellu ci yàlla génn kër yi dem ci àll ba ñaan ko te it en général bu ñu ko defee yàlla yónnee leen ab taw waaye mu nekk ci manière générale mooy suñu borom nee na tooñkat yi dinaa fayu ci ñoom loolu tax mbokk lekk côté bu riba bu dee tuubul lu mu yàgg-yàgg conséquence bi dana ko gis ki nga xam ne nii am njaalookat bu sax te njaaloo tuubul lu mu yàgg-yàgg day gis conséquence ya mi ngi noonu suñu borom yàlla nag mu ne yéeféer yi yéemu ci téere bi ma wàcc ci yow ma ne Muusaa it joxoon naa ko téere te mooy tawraat mooy téere bi gën a rëy bi gën a am solo après alquran te tuddee l'ancien testament suñ borom mu ne fala takun fi miryati min liqaa'i bul nekk ci sikk sàkka ci ab dajeem wax yu bari borom xam-xam yi wax nañ ko ca bokk na ca ñaar yi ca gën a feeñ mooy bul sikk sàkk ne da nga mas a dajeeg Muusa te it yàlla dajale na ko Muusa ci asamaani juróom-ñaareel yi comme niñ daje woon ci juma Aqsa yéen a ngi dégg ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko yàlla yi di jox julli da ko santoon xeet bi julli juróom fukki julli waaye bi mu dajeeg Moussa alayhi salaam moo ko laajee biir na ko Moussa ah na ko Muhammad man maa la jiitu ci risaala kon lii sa xeet mënuñu ko demal ñaan yàlla woyefal ko suñu yeneen ci dellu ci yàlla bu ñëwee Moussa na ko dellul yàlla di ko woyefal ba yéemale ko ci juróom ne ko nag sama waxi démb du tebbeeku juróom yi bu ko sa xeet jullee ma considéré ne ñi ngi julli juróom fukki julli par bés bu nekk loolu di ngëneel bu rëy bu ñu yàlla defal la ëppoon ci xeet yi fi daan jóge suba ak ngoon lañu daan julli ñun yàlla may ñu juróomi julli ba pare ne ku ko def ma considéré na nga julli nga juróom fukki julli ci bis bi kon daje nag Moussa alayhi salaam foofu yonent bi melal ko ne nii la mel naa la mel donte ne am na ñoo xam ne dañuy delloo min liqaa'i mooy ca ab dajeem mooy Moussa yàlla da ko yónnee woon jox ko téere bim ñëwee dañ koy weddi bim ñëwee dañ ko lor bunduxataal ko ko ñit yow it wàcc naa ci ab téere yow téere la Moussa dajeeloon xamal ne da nga daje ak moom rek looloo tax suñu borom mu ne ci yeneen aaya kazalika nuqassu naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbit bihi fuadak ñu ngi lay nettali fa yeneen yi jaaroon ngir dalal sa xol ci loolu ay kon borom bi loolu la wax mu ne nag Moussa wala téere boobu di tawraat defoon nañ ko ak njub ñeel bani Israil te it mbokk bi Moussa yàlla na ko ñun ci bani Israil mboolem yonent ci seen xeet la leen yàlla yónni alquran boobu itamit muy tawraat boobu moog alquran a yem lan lay jëriñ mooy aw yoon la gëm gën koy gëm jàng ba nga koy jàng amul benn njëriñ lu dul nga jóg jëfe ko soo ko jëfewul amul benn njëriñ moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ñoom day ñu ngi noonu def nañ leen ay njiit yoo xam ne ñu ngi jubale ci suñuy mbir ay yàlla tànn na ci bani israil yi àndoon ak Muusa ñoo xam ne def na leen ay njiit yoo xam ne dañ doon woote jëme ci yàlla di jàngal nit ñi diine yàlla ji di leen teete di leen ci yar lan lan moo leen may loolu borom bi nee na mooy lamma sabaru bañ muñee ah luñ muñ mooy coono yu rëy yoo xam ne seen xeet doon nañ leen ko teg ak weddi gu ñu leen doon weddi muñ giñ ko muñoon loole da ngay gis ne ca la ñu nekk ay njiit waaye la leen ko may dëgg it mooy gëm guñ gëmoon aaya yàlla yi gëm goo xam ne gëmuñu ko ci ne dañ ko doon suñuy maam wala dégg naa foog naa waaye dañ koo jàng ba am ci yaqin te loolu mbokk la ñuy wax naan bi sabri wal yaqin tunaalu imaamatu fi diin bala ngaa nekk njiit ci diine fokk nga jàng ba xam lan la yàlla subhanahu wa taala bëgg jaam yi def ko lan lañ bëgg ñu tere ko loolu mooy yaqin gannaaw bi fokk nga muñ amul kenn kuy jóg di woo nit ñi ci yàlla lu dul da nga dégg ay baat te loolu mooy la gën a woyof bal am na ci ñu tëj ci kaso yi am na ñu ciy rey am na ñu ci génn seen réew moo tax suñu borom ne la ma sabaru moom la ñu wax naan bi sabru dafa u shahawaat wa bil yaqin dafa u shubuhaat muñ gëñ muñoon moo dox seen digganteeg seen bànneexu bakkan faaluwuñ dara ci diine yàlla ji lu dul ngërëmal yàlla waaye yaqin ba it moo taxoon ba amuñu benn sikk sàkka ca la nga xam ne doon nañ ko wax borom boobu nag ne bañ wootee waa bani israil juyoo nañu waaye sa borom day mooy àtte seen diggante yowmal qiyaama ci lépp loo xam ne nekkoon nañ ci di ko juyoo ca it mbokk comme ni ngeen ko yàgg dégge waa àdduna tëral nañ seeni àtte àtte yi bëri na lool te ji boo demoon ci réew yi nga xam ne tubaab beeka mooñ yépp ca bokk na ci suñu réew da ngay gis lu ñu tuddee cour yu dul jeex cour d'appel cour suprême cour de cassation cour de nangam ñu ngi noonu léeg-léeg cour bi atte la ñu ne déedéet nañu yóbba beneen cour ila axiri ala kulli xaal ku mën a atte ne atte waaye atte bu mujj ba moom yàlla rek la ñeel yàlla rek moom mooy attewaat lépp luñ mas a atte ak luñ musta atte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak abu zar abu zar nee na ñu gis ñaari xar yuy mbëkkante mu ne ko ndax abu zar xam nga ñi luñ jotee mu ne ko ah déet wax dëgg xawma ko mu ne ko mañ dee xawma ko mais yàlla xam na ko ci dana leen atte yowmal qiyaama bépp xar bu ñëwee ki béjjénam fekk xar bu amul béjjén mu ëpp ko doole mbëkk ko yàlla dana leen dekkal yowmal qiyaama kañ tooñoon yàlla saxal koy béjjénam mu mbëkk ko moom it yàlla doog leen def poussière ay kon mbokk ku la neex geral ku la neex àndalal bal ah dëggug jàmbur ñu jël ko jox la ko safara lañ la jox te yonent bee ko wax nee na yéen a ngi ñëw di attewoo ci man mën na am kenn ci yéen gën a saf làmmiñ gën a mën a lay ba ma jël dëggug moroomam jox ko ko mu ne képp koo xam ne defal naa ko ko day bu ko neexee na ko jël bu ko neexee na ko bàyyi waaye na xam ne safara laa ko jox loolu it mbokk atte buñ la atte fekk yaa tooñ du daganal mukk lañ la jox du la teggi mukk àq ba nga waroon a delloo loolu kon lañu sunu borom yàlla subhanahu wa taala di wax fi mu jaar ak bani israil ca fa lay nar a jaar ak mboole mi mbindaaf wan mi ngi noonu sunu boroom subhanahu wa taala mu ne awalam yahdi lahum xanaa jubalul yéeféri kam ahlakna min qablihim min alquruun ñaata lañ alak jiitu leen ci ay maas yamshuuna fi masaakinihim ñoom ña ngay dox ci seen dëkkuwaay ya inna fi zalika la aayaat nekk na ci lii day ay kawtéef afala yasma'un xanaa ñoom nekkuñu di dégg awalam yaraw xanaa gisuñu ba tayit anna nasuuqu almaa ila al ardi al jurzi ñun ñooy jeñ ndox ma yóbbu ko ca suuf sa nga xam ne daawow koŋ fa nuxrij bihi zara al jurz mooy lu amul ñax amul garab fa nuxrij bihi zara ñu génne ca am mbay taakulu minhu an'aamahum mu cay lekk seen jurga wa anfusuhum ak seen bakkan ya afala yubsiruun xanaa ñoom nekkuñu ñuy gis qul ya wa yaquluuna mata hada alfatxu ñuy wax moo kañ la boobug ubbee ay boobug attee in kuntum saadiqin nem nekk ngeen di dëggu qul yowma alfatxi neel bisu atte ba day laa yanfau alladina kafaru imaanuhum du jëriñ mukk ña weddi woon seen ngëm nga wala hum yunzaruun ca duñu nekk ñu ñuy xaare fa arid anhum du mooyul ci ñoom wantazir ca nga xaar innahum muntaziruun ñoom it ñoo ngi nekk di aji xaar ñu ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi wax ci ne yéeféer yi nekk ci kaw suuf weddi xanaa jubalu leen ñaata lañu alak jiitu leen te mbokk xeet yi fi jiitu woon yépp sunu boroom daa yónni ci ñoom ay yonent yonent yi ne leen su ngeen ñu gëmee day yàlla naatal seen dund tàbbal leen aljanna su ngeen ñu weddee day yàlla mbugal leen àdduna mbugal leen alaxira xeet yi jiitu woon weddi ñoom ñépp yàlla subhanahu wa taala mbugal leen ca loolu ñoom surtout waa makka soriwuleen woon waa aad soriwuleen woon xawmu samud soriwuleen woon xawmu luut léegi mu ne maas yi yépp ñu alak ñoom ñi ngi dox seen dëkkuwaay yi te it dañ daan dem yemen di dem Sham donc daanañ dem fa ñu allégué woon waa aad fa ñu allégué waa samud fa ñu allégué xawmu luut ñi ngi dox ci seen dëkkuwaay yi loolu day kawteef mi ngi ci su doon am nañ ak dégg te mooy fekkiwuñ ko waaye seen maam jot nañ ci seen maam ñooñ jot ci seen maam ci ne kat waa at nii lañ leen def waa sàmm nii lañ doon def ñoom ñëpp yëgoon nañ histoire bi donte ne dañ ko daan wax li tubaab yi tuddee légende pour ñoom ah loolu ay léeb la rek borom bi ne xanaa duñu dégg waaye tamit mbokk jullit yow it war nga cee bàyyi xel ne toujours boo xoolee fi ngay dox yaa ngi dox ci dëkkuwaay ñoo xam ne tey ñu bari nekkatuñ fii rawatina yow mi dem Dakar xoolal fi ngay jaar autoroute yi ngay jaar nga doon da nga naan Malick Sy la Lamine Gueye la dem fële ca la nga xam ne mooy avenue Roume la avenue Vincent la avenue Nangam ñoo ñépp booy xool ay nit lañ ñu fi doon dund yoroon àdduna ñii di buur ñii di sëriñ ñii di nangam tey suñu borom yàlla ramasse leen ñoom ñépp dugal ci biir suuf am na ci ñu baaxoon am ci ñu bonoon yow bis boo xëyee jaar foofu dalay won ni li leen yóbbu du la fi bàyyi loolu la suñu borom wax ne xanaa doxuñu ba xool dégg loolee ngir mu mën leen a jëriñ kese la kon mooy lii da leen di won ne mbugulum yàlla mën na wàcc ci ñoom comme na mu wàcc ci ñu jëkk amma bu dee àllaaxira bi ngeen weddi suñu borom ne waaw xanaa gisu leen ne ñun ñooy jël ndox daal di koy puus ba ci suuf boo xam ne dafa wow te lii suñu borom naam dana puus ndox ci kaw asamaan ñu ngi noonu yusiru sahaban fa suqnaahu ila baladin mayit nee na ngelaw yi dina jël ay niir yi yëkkati leen gannaaw ba mu yóbbu ko ci dëkk bu wow comme nañ ko jàngoon sootu ruum waaye bokk de kawteef bu yàllay def ay dex yoo xam ne suñu borom yàlla mooy indi ndox mi ni ma amee ci fleuve yi nekk boori Fuuta waaye gën na feeñ ci li ñuy tuddale Niil Niil boobu nga xam ne dana arrosé ay douze mille kilomètres jóge ay Soudan traversé Égypte nangam nangam suñu borom yàlla bu dee ne taw bi taw ne feneen ba Niil bi fees day ball dugg bi Égypte ci lu sori arrosé tool yooyu yépp su ko defee da ngay gis ne ci la ñuy profité dafay indaale benn ban boo xam ne dafay engrais seen tool yi ñooñu ci la ñuy profité bay liñ bëgg a bay yépp ba baa déwéniti loolu am donte ne amuñu ndax mi en permanence mais jamono bi mu fay ñëw ca la ñuy bay seen bay yépp loolu di xiiwalug yàlla goo xam ne ñoom defaruñ ko seen imaam defaruñ ko yàlla subhanahu wa taala moo ko tërale noonu waaye ala kulli xaal même yow boo bokkee ci ñi nga xam ne seen ndox asamaan lay jógee comme ni ko yàlla waxee ba tey yaa ngi dem yóbbu Sénégal li ëpp lu ñu fi bay mooy dugub ak gerte masalan jël nga sa gerte yóbbu ca en tool ba daal di koy ji bi ngay ji loo ji kemb kese nga ji mooy bi nga xaree gerte bi lu xonq loolu kemb bi nga jël nga dem ji ci tool bi trois mois après tool boobu nga xam ne da nga fa yóbboon benn saaku kemb masalan suñu borom yàlla génnil la ci loo xam ne mën na nekk tonu gerte gerte gi ci boppam ànd ak ay xollit xollit yooyu ñi mën caa jëfandikoo lu bari ay saaba yu kenn xamul waaye ànd ak ñax moo xam ne ngooñ la yow boo diqee sa tool dajale gerte gi jóor fee dajale ngooñ mi mu ëpp ko fukki yoon nga jël ngooñ mi jox sa jur jël gerte gi lekk ndax bu doon te ne ne gerte googu gerte rek la ñu yàlla delloo ñun ñu jur bi ñu bëgg koo bokk ndax dana sotti déedéet du sotti mais da ngay xool suñu borom yàlla subhanahu wa taala ci benn kemb benn gerte te la ma wax ci gerte ga moo valable ci dugub bi dana pepp dugub mu génneel la ci benn gattax gattax googu génn mën a génn juróom-ñaari gub ca kaw mën la génneel plus de un million de pepp dugub sans compter gattax gi ak ñax gi mu àndal nga xam ne da nga ko jël man cee defar say néeg comme li ëpp ci néegi àll yi jox sa jur ñu lekk ci mi ngi jóge ci benn pepp wala ci benn graine ci gerte yàlla mi def loolu ak kattanam su ne day dekkal ku dee doomu aadama bu xel waru koo mën a weddi ba tax mu ne xanaa gis ñu ne maa ngi leen di génneel mbay ñu ciy lekk ñoog seen ak jur lii day ay kawtif yi nga ci xanaa du ñu gis lii moom dañ koo gis amma alak alkaa ngi xeet yu jëkkee loolu moom dañ koo dégg moo tax suñu borom ne afala yasmaun waaye lii moom képp ci mën a teg bët ñu ngi noonu même yow go rek Dakar bu dee mos ko gisit nga la waay demal vacance fu soriwul dara fii léegi rek ngay gis ay tool yoo xam ne toolu gerte yak toolu dugub ya ñëwoon la cosaanam nii la demee woon borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni ñoom day teewul ñi ngi naan waaw nii ngeen yàlla dañuy dajale atte ñu atte boobu kañ lay doon kañ la ñu yàlla di dajale dañuy atte nee leen nag ñoom day bis bi yàllay atte jaamam bu keroogee yéeféer yi ngëm ga du leen jëriñ dara te da ngay gis jàng nañ ci gannaaw suñu borom yàlla mu ne walaw tara isil mujrimuuna naakisu ru'usuhum inda rabbihim rabbana absarna wa samina farjina naamal salihan inna muqinun loolu lañ doon jàng démb suñ demee àllaaxira daan taxaw ci kanamu yàlla e yàlla gis nañu de dégg nañu de am nañ yaqiin léegi delloo ñu rek ñu jëf lu baax suñ borom mu ne keroog ngëm ga du leen jëriñ dara mi ngi noonu léegi nag ca kenn du leen xaari directement sa war a lañ jëm léegi comme ne ngeen ñoom nee nañ gëmuñu toog leen xaar ñoom it ñi ngi leen di xaare baba fan la yàlla subhanahu wa taala di mujj ak ñoom ca mbokk la chaque année lu mu yàgg yàgg yàgg li nga xam ne moom mooy bisu penc loolee moom laaree ba fii fokk day ñëw mbokk luy mooy saaru sajada bi nga xam ne bañ koy dal waxoon nañu yonent bi alei salaam ni mu ko fonke woon ndax dalay won li nga xam ne mooy cosaanu doomu aadama won la déeg doomu aadama ci malakal mawt yi koy jël si won la bu leen yàlla dekkalee fam leen di rangalee yowmal qiyaama won la yu bari ci mbugal yi jox la misaal ci xeet yi fi jaaroon yi yépp mbokk da ngay gis lépp lu doomu aadama war a soxlawoo ci gëm yàlla ci màggal yàlla ci gëm àllaaxira ak téere yi ni mu ko waxee Moussa joxoon naa ko téere kaza wa kaza loolu lépp saar bi da koo tënk loolu tax yonent bi alayhi salaam ittewoo woon ko daan ko jàngal jullit ñi lépp lu mu ci jublu woon yal na yàlla def ko suñu biir xol te it jëfee ñu jëfe ko suñuy cër mi ngi noonu loolu moo doon suratul sajda ñoo teg ci li nga xam ne nii moom mooy suratul ahzab